Ça kontaan naa de de kontaan la la kontaan naa supporter Marseille sama xol dafa sedd guy li ñuy wax sama xol dafa filigo tay dama su ma Iliman Ndiaye maa bu ma may la la sol quoi xam nga Longoria bi fi nekkee léegi transfert bi ma gën a c'est c'est c'est il Ndiaye parce que on est des frères de ay xarit lañu et tout moy ma Marseille mooy ma maay Sifli ñaati mais euh, faut dire la vérité transfert bi gën a rëy si Longoria bi fi nekkee léegi ak Marcour c'est Rabiot avant ma ñëw na jour classe mondiale mais un jour boo de fin de carrière la mais saison daaw excellent Alexis Sanchez ñëw na fi content non mais fin de carrière mais Rabio Rabio prime gam c'est un Rabio boo xam titulaire du côté de l'équipe de France 29 ans capitaine du côté de la Juve Milan Inter la Juve prolongation Barcelone Real Madrid Manchester City Arsenal toute équipe de soxla woon nañ de bu kenn wax soxla donc il vient à l'OM quoi ba pare on joue amuñu coupe d'Europe jéewuñu conférence jéewuñu Europa League jéewuñu Ligue des champions il vient à l'OM Mason Greenwood Mbowayi John Tandro, Carboni je sais pas Osberg Brassier mais tous ces joueurs tu me dis saa yi boo jéewul titre dootoo jéew ci titre gars yi nee naa Marseille 89 a gagné jël coupe de France dañu la euh, coupe de France 2010 a gagné jël championnat bi dañu le championnat et Rabiot mii avec dispositif tactique bu désert Rabiot sorti de balle yi mu lay par rapport ak contact Bia, ah, techniquement parlant c' au-dessus c'est un joueur bu xamante ne high level C'est normal que mu am ferveur bii du côté de Marseille eh, man dama hyper content nee naa leen saa fii mooy chaîne képp ku bëgg Marseille bul wër bul gestu bul xool ñëwul sur Mohamed mu jox la lépp loo bëgg xam si Marseille histoire avec le passé avec le présent man dama content quoi dama kontaan léegi dama dama dama mënut a wax quoi je suis trop content gars yi Rabiot est à l'AMD à wàcce na avion bi demee day def visite médicale am signé son contrat et on espère que dimanche Olympico contre Olympique Lyon je sais que day des day court trop pour mu nekk fi en forme mais bu amee benn 10 minutes damay jël encore merci Longoria merci benacier benacier autant pour moi merci suñu nous bi. Bamba est back est de retour Bamba a na but donc en euh, Ligue 1 après mu jógee Lorient donc premier match am mu provoqué penalty deuxième match je mu but, il dafa extra voir Strasbourg d'ailleurs mu mais Bamba question bi me euh, donc est ce que je retrouver niveau de Marseille ou Marseille wala niveau de l'Europe de Coupe d'Afrique? a gagné euh, final donc au euh, barrage coupe du monde ñu naan Égypte ba tey mu defaat ci camp yi et je me rappelle première minute à Marseille contre euh, Auxerre en coupe de France avec le maillot de l'OM donc Bamba Dieng ku ma xam la bu mais dama demoon ba am impression Après après coupe d'Afrique bi c' comme si euh, boo koy sraan t'as l' impression que Ibrahim Bis ngay ou wala Cristiano Ronaldo wala Messi genre c'est comme si dafa def dafa yegg quoi dafa gagné ay Ligue des Champions il n'a plus rien à prouver alors que faut nga war a gën faut prouver foofu nga war a gën a quoi waroo doyal man man impression c'est laa amoon si si Bamba Dieng wax dëgg fa maintenant pour man blessure dafa la wara a lu bari, nek nga sur sa xam nga li lay xaar parce que si diggante bi ben Jackson fële na fi moo ngi mo ngi Chelsea même si en équipe nationale du Sénégal c'est compliqué mais Chelsea da nek quand même y a des Iliman dia kenn am na temps yow bu ngay toj Coupe d'Afrique kenn xamul Iliman Ndiaye xam nañ ko mais kon ken waxul woné euh mo lay remplacer et tout on pensait tous que si diggante bi di nga fi progresser yor fi ben niveau bu xamante ne voilà maintenant nag yàlla moy dogal suñu borom moy dogal ñu nangul ko nak mais nak yow tamit il faut nga def sa autocritique lan moo m'a pourquoi je me blesse souvent donc seetal hygiène de vie bi que hygiène de vie Euh, avant l'entraînement, après entraînement travail ko masse bi je trouve que dafa gën agile gën explosif donc tout ce qui est physique athlétique am na ko ay ay reprise en haut Donc il y donc am puissance am puissance de tir donc juste ay déplacement ngay changé am finition et tu peux être sa attaquant bi ñu yaakaar ne am nga y a des cultures, yu ne bu yàlla suñu à toi de travailler.

on a Boulaye, certes, Nicolas Gasset, c'est difficile, mais il euh, y a des joueurs qui viennent, Abdrassima, euh, Serif Ndiaye, tout ça là, il y a une concurrence directe à Bambadien. Mais moi, pour moi, euh, si vous voulez comme ça du Sénégal, si vous voulez de Ligue française, donc il faut Paris, il faut Marseille, il faut Lyon, il faut privé, ça ça n'y pas quoi. Donc Bambadien se back, j'attends plus, mais déjà deux matchs, je me voilà, dans la semaine, la suite appartient à l'histoire.

Eh, gis nañ bu du woon problème du côté de Salernitana ah, c'est un attaquant bu xamante il est capable de claquer 20 buts et Serie A Italie sans maa ngi Balotelli mu ne championnat bi gën a naqaree dugal selon moom euh, jaar na Angleterre jaar na championnat France ci Italie Serie A Italie parce que très tactique euh, donc euh, gars yi duñ may dara ba pare def pour moom selon lui aussi ba day Balotelli may wax y a des défenseurs très intelligents voilà donc mu ne bu laajee nag nekk di fa def ay preuves mu nekk lu lu lu lu intéressant donc xam naa ne premier li la mës a et propre profil bi ñu premier li doon na nekk championnat boo xam ne dina jël la profondeur dina utiliser puissance am et tout donc Blaga euh, boo xoolee même en Coupe d'Afrique daf ñu manqué blessure yi mu am yàqal na ko lu bëri mais c'est quelqu'un boo xamante ne capable bu fekkee Blaga moo nekk sa kanam saa yi doo noppale day daw day kii et actuellement il est plus fort qu'avant Blaga bi ñu gagné Coupe d'Afrique Blaga boobu noonu Blaga bi moo gën a tàng instant yi si digg ndëndaam la nekk si digg dooleem la nekk donc mu la fekk mu double bi di def ces prestations là non seulement dama content pour lui et pour l'année dernière ñu ko écarter ñu ko écarter dafa bëggoon dem première ligue Wolverhampton et tout euh, voilà euh, début de saison gis ngeen mu def triplé ak ak Salernitana donc euh, cette année avec l'aide de beneen équipe bu gën a am calibre avec des joueurs comme Gendouzi voilà avec un entraîneur bu xamantene de am ay ambition dirigeant am ambition ñoom jëli ji Boula Dia bi ñu bi ko yëndee loolu la wax c'est un entraîneur capable de mettre 15 buts voire 20 buts donc en Série A donc félicitations Gaynde et donc euh, ñu lay ñaanal bu baax a baax gars yi noonu la gisee bu Dia ci commentaire wax leen mako ko. te Gavi doo ko tek numéro 6 parce que il fait trop de fautes. mané Gavi je trouve que c'est un profil bu xam muy réinté am na deux points day deux partout nekk dans la récupération comme xat du may dara. xiif agressif man gab non gabi saa gabi daa tànk de c'est que yow yow tu es plus sur le le côté technique élégance ba ñi nga wax ñi ñëpp c'est des bons très bons nga wax ñu ngi wax ay affaire numéro 6 ñi nga wax ni que mooy ci côté technique de. non gabi saa gabi day xëy de. non xam nga fan laa teg loolu. gabi saa moom loolu du kee côté technique kese de. gabi c'est un joueur impulsif. gars loolu ñeneen ñoom jour deuxième mi la. ñeneen dañ de mooy g numéro 6. xam nga fan laa bëgg a wax naa la bàyyi nga continuer xam nga fan laa bëgg a wax Aliou mi ñu invité woon keroog si live nee na Barça bu muy sombale Gavi rek moom bokkoon na si réseau yi xam décevoir xam nga tamit parfois yaa fi sës mooy taxafalu gi nga benn jeeg ci sëy nu ko neex lay sëyee benn jeeg ci kër nu ko neex lay sëyee. waaw loolu dëgg la Mohamed parfois nit dina nekk ci benn place parce que gisuñu ko ko fa tane. mais dama ne la Barça ak bi ñëw Pedri ñëw De Jong ñëw ak Bernal bi nga xam ne yéeg na ci kaw kan la Gavi di football laa leen laaj wax leen ma yéen jeen commentaire wala Mouhamed yow a les yu xamante ne t'as plus besoin Gavi que joueurs yi nga wax nii. par exemple Pedri il se ko comparer ak Gavi c'est pas des c'est des joueurs pour man c'est du du du procès bu baax pour Gavi. c'est pas bon procès pour Gavi quoi tu comprends dès ngay comparer ay joueurs hyper technique comparé ak Gavi danaa Gavi dis-y dégg ma m'expliquer wu dégg ma m'expliquer wu Gavi bu dee numéro 8 relayeur Deyo mon ko dàq bu numéro 10 Pedri Olmo ñoo ko pas dernière pas ñoo ko bu numéro 6 Bernal moko gëna mat numéro 6 dafa wara am taille dafa wara am gabarit Gavi dafa gatt ci numéro 6 yaa ngi dégg baax li ma lay wax. ñu am Gavi am Bernal di teg Gavi ci kaw Bernal loolu ku ko def saaga ndey football football da ngaa saaga. non doo doo may ma yegale gis nga gis nga gis nga. gis nga gis nga Gavi. dama koo xam c'est un très bon jour maanaam bu dee engagement ak bëgg-bëgg moo ko ëpp ci jour Barça yëpp am na fit am na sañ-sañ day marqué terrain yëpp il répond toujours présent mais dama ni la. il est trop impulsif il est toujours excité Gavi man nga ka rom na a dugali mu fàdd la sa way jël rouge loolu la yemaleeg nan ndox il est impulsif il est trop excité au niveau parfois de soxla dal. excès de hmm, agressivité bi dafa bëri quoi dafa am excès ci loolu. Yaay ngi dégg non Gavi il est trop impulsif xam nga dama ya Gavi ñaata foot lay def. Wa wa, mom da tang, mom day football avec le cœur. merci mais mais voilà mais. gars yi xamuñu sax fu may waxee Ngolo Kanté ngay tëkkale Gavi maanaam Gavi xam nga gars yi parfois xam nga dañuy wax nga foog ni da nga ni jour bi xamul dara maanaam Gavi. te yow c'est que yow da nga nekkul dans l'émotion quoi. yow tu es froid si ngay wax. alors que gars yi ma bëggal kii Gavi boobu lay wax ne lii la xam rek. day comprendre nit ñi aussi li soxla aussi tamit nit ki bëgg a Gavi yow nit ki taxaw na la Gavi noonu la demee. <laughs> xam nga bu ma man mii jële comprendre naa naa leen. dama ni la Gabi. Hmm. bu ma nee xamul dara ça veut pas ni Gabi est nul au foot. wax la dégg-dégg la laaj lu ma la bëggoon. dama la laaj waaw ak effectif oh, bii Barça oh. yor. ak coach bii Barça yor. ils n'ont pas besoin de Gavi vraiment gars yi dans le jeu. mën nga ko dugal nag deuxième mi pour conserver score mën nga ko dugal des fois. bu fekke am nga ay blessure wala genre mais dama ni Gavi bi mi titulaire Barça bu ko ay Olmo ay Pedri ay Bernal Gavi du football ci kaw trois personnes yoy kenn football Gavi Mohamed c'est un c'est le 6 de métier Gavi du numéro 6 de métier xam nga bu dem Bernal mo fi football ñaata la fi Gavi nek bu Il ban Barça bu ci Masia bi nga ñu ni ñu ni ñu ni ñu mm. mooy digne muy digne héritier wu Busquets. Seydou Busquets waaw non gis ma ko. gis ma gis ma ko si bool bi am na taay bi am na gabari bi. macha allah Bernal moo fi am taay bi mën a am récupération bi am élégance bi. merci léegi kon Bernal bu ñëwee day jël siis bi mu des deux places. Mouhamed da ngay da ngay da ngay da ngay loo gabi ci kaw deewam ñeme nga loolu. <laughs> déedéet. merci. ma ne ça dépend rek. mais xam nga bu nekk ak histoire c'est des questions pièges yi question bi nga posé nii question fermée la da lay posé ah, ne la ma xam nga saison mas yi bëri na mën nga mën ngay titulaire mais on départ là on titulaire maanaam indiscutable yi. gars yi nee na Gavi mooy Sabi. xam nga Barça gars yi mooy Sabi. la waa Barça dañoo xaw a impulsif même côté émotion bi daf leen sonal. waaw émotion nag de tey suba ñu saaga la non xoolal xoolal xoolal lan xoolal eh kii nii yor sen début saison bi Rafinha lan lañ ko waxul ñoom ñoo koy tagg tey. waaw waaw Rafinha. loolu lañ ko wax. man moom Rafinha dama si daan xuloo ñii ñi mën naa Rafinha daa baax teel leen Rafinha mën ngeen ko jëriñoo mais ren jii bu ma gisee ñi ko doon xas daaw di ko tagg man damay waaru sax ma ne ñii moom xaaru ñoom ñoo doon xas daaw merci fàtte woon naa sax Fermin Lopez. Fermin Lopez rek moo gënal Gavi. mais c'est pas les mêmes postes presque ah c'est pas les mêmes profils xam nga souvent man dama naan souvent am ay profils yu différents dafa baax quoi. xam nga am na match yu xamante ne Fermin Lopez ngay gën a soxla dayoo ngay gën a soxla mais amna na match yu xamante ne kat ngay soxla Gavi moom ngay soxla c'est pas tout temps que tu as besoin de technique de teg bal bi de dawal la lii yàlla match yu xamante ne saa la ngay tek kuy rente mais bo ñëwee jël na Gavi rek andi benn jour bu technique rek day nekk question ferme bo xamante lay day fo foo bo waxé boo jour bi dina am ki muy wax ni c'est pas ah, ça. Ah, mais les, euh, pour avancer un peu. pour avancer bu may terminer Gabi, mais pour avancer un un peu euh, animation offensive pour Barça noo avec Al Olmo bi Rafinha Lamine Yamal fantastique soit joueur meilleur joueur du mois d'août Dior pas à son âge et Lewandowski bi xam dafa am d'expérience, <coughs> donc animation offensive pour Barça noo mais on lay bàyyi terminer le programme daa wax si gab animation offensive Oui, Barça il faut parfois ñuy teg côté émotion bi moo leen xaw a sonal. donc ba pare parfois ñuy jéem a comprendre fi ñuy waxee. xam nga bu ma nee Gavi xamul dara ça veut pas dire Gavi xamul dara fan laay waxee maanaam ci Barça richesse effective bi mu yor ren macha allah ñëpp ñëwandoo ñëpp tane ñi demoon blessure ak Bernard ñëw De Jong tane Pedri ñëw Fermin Lopez ñëw Gavi ñëw. ñu may choisir loo man njool mi barke alxuraan may choisir trois yu war a football gabi du titulaire bu dee numéro 6 la Bernal laay choisir teg De Jong wet gi numéro 10 ma joué loo Olmo wala Pedri. Fermin Lopez mën na ñëw deuxième mi-temps mën na ñëw deuxième mi-temps Gavi ak Fermin Lopez mën nañu ñëw ci rotation parfois nga titulariser leen ci yeneen mas mais dans les grands rendez ñu bu militaires yëpp nekkee sa waay barcha bu fekkee. am na ku am na ku may wax